ku mel ni nag kab ma koy leeral tuuti quoi ñëw fi pour jële fi benn kuréel ñëw fi aussi tam pour xeex kenn dafa ñëw ne ubbi naa bunt yi ki nga xamante ne day waas ba ki si kaw ñëpp nañu ànd di nasandoo di noccandoo loolu nag aussi dafa jaadu pour ñu leeral ko parce que xëy na taxawaayam mën na am na ko ay nit di gisee mais bu ñu ñëwee ba jegeñ rek wala ñu nekk si biir dinañ xam ne ne dara taxu ko jóg fépp fu ñu dem nag ñu ngi tàllal ñëpp loxo ci turu kab ne nañu ñëw ñu xool la fa nekk naka la ñuy ànd ndoowee ba géej gi ñu xool naka lañ koy bokkoo naka la ñuy liggéeyee ba kenn bañ a yàqal kenn ba bëgg bëgg bëgg yi si boppam aussi tamit bu nekkee loo xam ne luy defar la nit ñi mën ko respecté ba ñu mën si ànd mën a am une réussite di gërëm nag le ministre nag Alioune bu baax a baax baax parce que li tax ñu koy gërëm bu baax a baax a baax mooy yëpp mooy naka lay def pour ba napp gi si boppam am une réussite totale kon tamit moom comme que woo nañu te ñuy njabootam nañu jéem a di regrouper si ginnaawam ànd àndax moom pour ñu mën a am ñu réussite boo xamante ne bu ëllëgee dinañ xam ne ñun bi ñu fi nekkee moom suñu mission defar nañ ko defar bu mucc ayib. ñuy ñëw tey fii Mbour ci poursuite mission boo xam ne ñu ngi ko commencé depuis bërki démb ñu ngi ko defee Saint-Louis ñu dem Kayar tey ñu ngi Mbour après dañuy jàll si yeneen sites yu mag yi mission bi nag li ko waral dañuy indi benn balise boo xam ne dañ leen koy présenté comme ni ñu fi ñëwee woon indi yeneen balise waaw balise bi dafay permettre cinq minutes yu nekk dañ lay tracé ñu joxe sa position li nga xamante ne day yombal ëllëg si biir su fekkee am nga ndog wala nga bëgg nit ñi ñëw jël si la am nga problème dañoo seet lu bari dañuy ñëw jubal fi nga nekk ñu mën la jël mën la indi ci loolu ñu ci profité di remercier président de la république parce que xam ngeen ne réunion conseil des ministres bi passé rek dégg ngeen ko mu wax ministre que subvention moteur yi na ko gaawal mu àggali ko beneen bi mooy mu fexe ba nga xamante ne jàmm mu law ci askanu napp gi yëngu bi nga xam ni moo fi am ci fan yi ñu dalal ko ba nga xam ne ñun ñëpp dina mën liggéey si jàmm loolu ñu ko ciy sant di sant ministre tamit parce que initiative bi moom la moom moo yor département mooy suñu ministre de tutelle mu ngi def ay efforts yu bëri moom aussi mu concrétiser lool ni moom réer yi ñu koy wax ak nit ñàkk na bakkanam si géej dafa bëgg mu jeex fi ñu toll ci technologie gaal yëpp war nañu am appareil bi nga xam ne muy wax heure boo amee soxla ci waa Kajoor nga mën a fexe ni am naa jafe-jafe ñu mën la jël si léegi daadaar kon lool dañ koy sante euh, ministre bi parce que ci ci ci coobareem moo tax mu engagé wu pour doteloo gaal yi. ay partenaires c'est des acteurs de la pêche ñoom it volontairement ne ñun lépp programme boo xam se bi ñu ngi koy déroulé si état Sénégal mu jëm ci wàllu pêche ñoom dinañ ci dugal seen loxo que ci taxaw ba tax na tey jii ñoom waa CAP ñun dañ leen di gërëm di leen sant parce que tamit yombal nañu tournée bi parce que dañu dañu ñëw jël que doole jox ñu nañu fépp foo leen war a dem dem leen fa ngeen publier li nga xamante mooy que bi pour mool yëpp dégg ko amit que bi te tey jii tamit loolu ñun dañ koy rafet lu que waa CAP

parce que bu ñu ñëwee ñoom ñoo ñu jàppale réunion yi ñu def yëpp ñoom ñoo ko présider te bu leen neexoon ñu màcc nag ñoo ñoo ko présider ñoo ñu ko faciliter. Euh, a teewee te man li may laaj doon law rek la parce que yi man dama see amoon mbokk naa si njëkk am njàng mi kii dem Dakar ñoo ñoo yu mbuut yëpp man maa ko àndaale may ñëw wax dëgg yàlla man maa ko yoree di ko yóbbu géej it gisu naa sama bopp parce su ma naan tëmb saa yi ma tëmb rek yi dañ ma oone ma dem nga mais en même temps sama bosit comme li waa ji wax dañoo benn jour lañ ñëw na ma dañ koy dañ koy changé quoi léegi ma jël sama bos jox leen ko ñu yóbbu woon après maa ngi di owaat sax ay jamono ñu ne ma léegi yow amul problème bés bu ñu ñëwaatee li ñuy defar bu paree dañ la ko andil yaa ngi dégg comme li euh, Maodo wax léegi am lu amoon solo parce que ñu bañ àggee Dakar la comme yooyu jox ne moom antenne yi soo amee problème da ngay bës mais pour man sama xam sama xam-xam gàddu ak sama bii moo noppale te bii moo gën parce que tey si tey comme problème problème chargeur boobu noonu man moo tax sama basi yàqu parce que mbeex dafa day yàq euh, lii parce que loolu amul ba gi mënoo koo tëj te ndox dafa sew sooy daw nii da day jàkkaaroo ngelaw li si leen ndox mi di taas nag di dugg si biir moo dem ba yàq sama sama bos place chargeur bi soo chargé léegi dootu am courant quoi man sama bos moom wax dëgg yàlla man gisoo si naa sama bopp te doon naa ko yóbbu géej mu nekk loo xam ne si pour man lii suñ dimbali ñu ñëpp dimbal mooy la parce que euh, boo seetee digënté bi gaali am bi sans ci géej li ñi fere bari pour man la li ni yor ko gaali yeb yor ko te man sé dimbalé dimbalee mool yi loolu mooy nekk li nga xamné mëna mën nañoo arrangé quoi parce que tay géej dafa efficace nga dem rek xamolo xamolo ay fekk ku sañon bo dem géej jamm rek ngay am mais nak yalla moy dogal mais li boko amé nga bëss ay nit ñëw taxaw la wax dëgg yalla man rafetlu na nga torop wa ma ngi diglu kàddu nak wa salam santam ma ngi tudd ma Sey nek commission surveillance. jiite collège su Palangre si biir CLPA bu Mbour ah, li ma fi dégg nag ñu présenté ko njaga maa ngi koy sant di kontaan si présentation bi baax na parce que lii dafay yombal suñu dem di yombal suñu ñëw di yombal suñu nekkin parce que bu fekkee ne saa ñu demee ay 200 cent kilomètres ay 500 cent kilomètres am problème en mer am loo xamee ne bu ñu wootee immédiatement ñu gis ñu mën noo ñëw dimbali loolu yaakaar naa yokkuteef mënu ko mënu ko paase kon lii dañuy ñaan yàlla mu gën a amélioré bu ko defee lépp luñ ci séntul si lu baax yàlla yokkal ñu ko mais lii amul woon kon dañuy jàpp ne àdduna dafay dox kon donc buy dox nañu dox ànd ak moom nañu ñaan yàlla affaire bi mu gën a baax bu gënee baax ñëpp mën see jot tey ku ko mën a yor ku nekk nanga ko fonk ni la ko waxee nga essayer jàng ko ba man ko pour defe ko noonu beneen bi si mooy comme la sama collège bi waa président volet de surveillance bu dynamique boo xamee ne bu baax la boo xamee ne buñ nee ma am na problème en mer bu ñu ñëwee rek immédiatement une heure de temps wala 40 minutes ñu mën a yàgg ci moom mën ko secourir dafay baax mais ñu woote itam ñu ne mënoo dem boobu yaakaar naa day fekk appareil moom amatul njëriñ.